tey tey ku ci xëyewul ay policier xëye ngay gendarme bay juge wala tribinal ci gàttal ñoom ñëpp ci wàllu yoon la ñu xëyee muy observateur muy le quotidien muy libération muy direct info muy populaire muy enquête ñoom ñëpp wàllu yoon ak yoonal wàllu atte la ñu xëyee doo rek ak observateur mi ñu xëy xamal ne ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ki nga xamante ne ji moom la ñu dénkoon wàllu communication bu muy directeur de la communication euh, jamono ji teg nañu ko loxo ma nga ca kaso ba ndax tubaab bi nga xam ne la ñu faatu woon ñu ko madame Bao moom Ibrahima Bao moo nekkoon jëkkëram enquête ba topp nañu ko lañu gis moo di moo faat jabaram tubaab bi ba noppi daal di ne dafa xaru yéen kaay bi nañu ambassade bu France bi fii ci Sénégal ñoom ñoo constitué partie civile fas yéene kon dem am lante ak yoon ki nga xam ne mooy Ibrahima baawo di directeur communication bu université Gaston Berger ndax dañu ne moo rey jabaram madame Bawo ba tey beneen yéen kaay bu dikk ci wàllu yoon moo di enquête yéen moom daf ñu xëy xamal ne bateau boobee nga xam ne moo naan moom la ñu tuddee te ñu euh, fekkoon ko ci waaxi Sénégal yi mu dugg fii nekk ci géej gi te amuloon autorisation yéen kaay bi nañoo gendarme yi dugg nañu ci ils ont frappé fort ci gàttal dañoo ñëw wane seen bopp ca loolee sax journal bi nañu police daf cee mer ndax gendarme yeeg ni ñu doxalee ñoom ànduñu ci yamuñu ci ndax juróom-ñaari nit yi nga xamante ne ñoom la ñu déféré yóbbu lañ ca kaso te ñu nekkoon ci bato bi te ñooñee Toto Sarr bokk ci yéen kaay bi indi nañu seen i ñoom ñëpp ñi ci biir enquête yéen kaay le quotidien xëy ñu xamal ne keneen koo xamante ne ji ay mbiram ma nga ca taabali juge ba mooy Aïda Diongo Aïda yëpp jaxaay yéen a bi nañu doyen des juges jëlaat na dossier bi yamu ca de ndax it wàllu faux et usage de faux ay njuñ njaaj ak moom la ñu koy toppee ba léegi journal bi nañu lii di produit yooyee jébbal nañu ko ñi nga xamante ne ñooy waa ministère euh, gi amee kon wàllu santé lépp rek journal bi le quotidien lam ñu bëgg waxal moo di Aïda Diongo génnagul ci mball gi populaire xëy ñun ci ñeneen ñoo ne ji génnaguñu ci mballe muy lan rapport boo ne def nañu ko ci permis de conduire ak ni ñu koy joxee ci Sénégal journal bi nañu benn reportage boobu télévision bu ñu naan direct huit ñoom ñoo ko def yëf yàgg la mu feeñal jëwriñ gémee wàllu transport daf ci mer ba futtu rapport boobee am na ci ñu bëri ñu ñu tuumal ca ñu ca bëri nag ña nga ca ministère des transports ñoom ñooy def njuuj njaaj yi ak tappale yi ñu leneen muy ci wàllu yoon Pape jox ma xët mu njëkku libération njiitu réewu Tchad ba woon daw làqu si Sénégal tey lañ koy àtteeg suba lañ koy àtteeg Hissène Habré journal bi nañu en tout cas li leer ba leer moo de Sénégal contre Habré ca kanamu a kaay bi jàppee moo di ak gàcce ak humiliation ak toroxtaane waxi libération la leneen muy sport ak lan gayndee Sénégal yi ci Accra gedd gi ñu gedd ak jafe-jafe yi ñu fay ñaar yéen a kaay yoo xam ne dañoo xëyee ay laaj doore kook journal bi njëkk muy ban moo di stade yéen kaay moom la muy euh, la muy laaj moo di gayndee Sénégal yooyee ndax la leen merloo du choix yi nga xamante ne ji Alain Giresse koy def def génnee ñii dugal ñi ñamuy football ak ñamuy teg ca banc bi ndax du moo tax gaynde yi kon gis seen bopp tous les sports laaj leneen mooy ndax du dañ leen a gàtte ba ëpp maanaam ci gàttal dañu leen a reewal ñoom gaynde yi ba tax na xamuñu kon ana fan la ñuy taxaw observateur nañu en tout cas ak lu ci mën di am la waral fitna jaak la waral grève baak la waral li nga xamante ne ji moom moo tax gayndey doxalee noonu ne journal bi observateur xëy ñu ko leeral ana lan la journal bi jàpp leen lu toll ci ñetti téeméeri million moom moo andi woon jafe-jafe yi waaye sport nañu ak lu mën di xew nguurug Sénégal mere na ñi nga xamante ne ñoom ñooy meneur yi ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ boole gayndey ñu war leen a taxaw nguur gi mere na leen ndax dañoo gis ne waruñu woon yegg ak foo ak ñoom foofee ba tey ci populaire Mbagnick Ndiaye di xam ne ne mbàtteel la am ci gayndee grève bi nga xam ne def nañu ko dara lu dul seeti Moodu Xarañ loo Lo gonek Rock Énergie gi gonek Parcelles gi yéen kay bii di euh, sunu lamb nañu Moodu Xarañ loo gannaaw ab diir boo xam ne def na ko ci États-Unis fanweeri fan muy weer si na waaye ba mu ñibbisee ci aéroport Ndakaaru nanguwut a wax ak taskatu xabaar yi weesuwut ak ñoom yile kàddu mooy lan lépp mat na noonee la ko Moodu loo waxee journal bi nañu waaye muy Moodu Lo ak Eumeu Sène tey jii danañu am seen face to face lay doon Moodu Lo waxat ak taskatu xabaar yi observateur gisuma loolu leneen laa gis di lan Moodu Lo wax na ak ñoom lan la wax ak ñoom mu def leen xamal ne liggéey na bu baax j'ai bien travaillé noonee la Modou loo waxee ma waxee waxi kon ci li nga xamante ne ji moom moo xewoon ca Yoff mu di lan la ñu tuddee takku ndës loolee ca laaya ne la xewe journal bi ñu foofee la fam amul fenn tey neex ba ba ba ba doy la def mooy lan juróomi dërëm vingt cinq francs yéen a kaay bi nañu boo ko amee ñu may la jabar ca Yoff la am jërë ngeen jëf